فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم لو ختابي ومع الأكدار ولسوانا ودع القطار أيتنا على العدا فقلبوا ولسوانا ساقين انقلبوا تسليم باق لا يصال سمدا xanaa dañ ko def ci ndigal waaye moom ay waxam genn kàddoom képp mën naa yóbbaale suñ bindii kàddu ndax li mata wax lépp su waxee dana ko wax ndax moom yàlla du koo defal tawfeex yi léppam tàmmalee sëñ bi yëpp sëñ bi bëggul lu du sëñ bi dund lu du sëñ bi xamul lu du sëñ bi xamlewul lu du sëñ bi te ñooyu sëñ bi dong lañuy ñu xeñtu kon fu ñu dajee moom su waxee rek doy sëkk xëy na li dul mën a ñàkk mooy kàddu cant cant gi ñuy sant sëriñ Xaadim Mbay bu baax ginnaaw bu ñu ko nuyoo siyaare ko jaajëfal ko ci liggéey bi nga xam ne ci la mas a nekk ñëpp xam ko ci muy jàngale jàngale ñëpp ci lañ ko xam ginnaaw bu jàngee ba noppi ñëpp sëñ Xaadim jàngale rek ci lañ ko itteem jëpp ci la ko mas def amul jeneen itte dëkk bii boo seetee ñu néew ñoo mucc ci ñàkk tëral sëñ Xaadim bind loolu nag ndimbalul yàlla la tawfeex sëñ Tuubaa mu di ko def defee ko fu ne baax waaye yàlla defal ko ndimbal ak tawfeex mu di ko defee fi mu gëne muy def dëkku sëñ Tuubaa bi nga xam ne ak bëggam lépp moo doonoon nekk fi di jaamu yàlla di jàngal nit ñi di di leen yaw ni ko sëñ Moussa waxe loolu rek moo doon bëgg sëñ bi ci dëkk bi kon sëñ xaadim ci ñu nekkal sëñ bi ci dëkk bi ci la bokk ndax loolu muy def ci dëkk bi mooy bëggu sëñ bi wala fi ne dañ ne ko yàgg ci teen baak fekk la fa xëy na loolu moo waral tey jii bi di ci defee di ci demee jëme jomi boppam ak pëssif boppam ak ittey boppam mës a diis kenn ndimbal ci li muy def kenn ku nekk da nga koy fekk këram mu toog ci neex maam di la tëralal dem ba mën a jël fenn di ko fay ngir lépp di jàngale kon suñu demee ba yàlla def tawfeex ay bokki taalibe ay bokk yu bëgg xam-xam jaayante ñu wut dawab mel ni ngir liggéeyal jàppale ko mu man fee toog liggéeyal sëñ Tuubaa loolu ñëpp lañ ko defal sëñ Tuubaa lañ ko defal njaboot sëñ Tuubaa yëpp lañ ko defal waaye nun ñi bëgg lu baax bëgg xam-xam bëgg alxuraan ay doomi daaw ñëpp lañ ko defal kon ñi def jëf jooju it amel nañ leen ak can bu baax nañu xam ne li ñu def moom sëñ bi lañ ko defal waaye nag ci ñu ko defal itam yeelloon na ko yeeyoon na ko ndax ak dundam gépp ci loolu la ko def ñi ngi ñaan kon nii ñu ko tàmbalee tey yàlla na àgg ak jàmm bañ daje fi di ubbi ñun ñëpp kenn bañ a manqué te li tax ñu def ko itam suñu xaadim yàlla jox ko carte nag ndimbal mu man ko fee defee na mu ko bëggee na mu ko doon defee mu wéyal ko te yàlla dimbali ko ci ak njabootam ba am njaboot bu ko ci mën a aw goo xam ne fu mu yem ñu tàmbalee fa wéyal ko ba lislaam fu mu yem mu yem fa ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax tey di nuyu mbokk yi ñu fi dajeel yëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiit ndax dañoo amoon ngant moo tax ñu yeexe ñu waaye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sëñ Xaadim Mbay mi nga xam ne moom lañ ñëw tey ci daaraam ji nga xam ne moom lay bëgg a tàmbali ñu ngi koy nuyu di nuyu mbokk yi ñu fi dajeel yëpp di leen di rafet rafetlu bu baax ci li nga xam ne moo ñu fi dajale ndax li ñu fi dajale. mooy bëggug sëriñ bi rek ndax sëriñ bi léppam da koo def ci jàngale ak yar loolu moo doon li nga xam ne moom la fi indi jaarale ci lim ñu fi indi bu ko defee képp koo xam ne nag nekk nga ca dañuy wóor ne yaa ngi ci toolub sëñ bi te toolub sëñ bi moom wépp yiw ma ngi ci biir tool bi kon li nga xam ne moom lañuy bëgg a taxawal fii muy daaray jàngale xam-xami diini yi ak yar leen ci loolu daa doon loo xam ne ku bëgg sëriñ bi ku ne boo ko déggee danga ci sawar dana la itteel danga xam ne bërëbu liggéeyu liggéeyu liggéeyu liggéeyal yàlla la kon nag loolu mooy tànk yi nga xam ne moo ñu fi indi moo fi indi bokk yépp moo fi indi taalib yi yëpp yal na yàlla def ci noonu xeer ñi ci lu baax xeer ñi ci liggéeyal yàlla te liggéeyal yàlla ci foras yu mel nii rek lañ ko mën a defe kon yàlla lu ci yàlla dimbale ba kenn ku ne jàpp ci ba fi ñu bëgg daara ji àgg mu mën fa àgg ndax doy na ne rek ki fi nekkal sëñ Tuubaa itteel na ko rek loolu doy na ab soññee ñun ñëpp ku ne xam na ne itteel na ko te jëf na ci kon nag euh, ñu ci soñ ñëpp di ñaan yàlla àggale ko jàmm ba ñi ciy xamlu di ci mën a xamee bu baax mu nekk daara yi sëñ bi yoo xam ne ku ci génne danga nekk boroom xam-xam bu mag da ràññee it ne ndax da jàng njàngal njàngalim sëñ bi te ku jàngi njàngalim sëñ bi loola dana des ci yow di la jëriñ ci zaahir di la jëriñ ci baatin kon yàlla na ci yàlla dimbale yàlla na yàlla nangu liggéey bi yàlla na ci ndimbalul yàlla tàbbi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp moom it di ñu ngi koy sant bu baax ndax wax dëgg yàlla ci naka jëkk ci njàngale mi rek la ne te njàngale mi moom ku ci nekkal rek ku ci nekk sëñ bi nga ci nekkal moo tax ñun ñëpp dañuy jàppale ñoom nga ci nekkal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala يا من كفاه ذا القرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك حبدك القديم ساسلا